wala ñoo jox kenn date dañuy jox date ñi nga xamante ne ñoo yoroon ñoo dese woon ay combat ñoom ay victime la ñu woon bi ñu jëlee nag Leewtoo boolewu ci wax daal di jël le 19 décembre tey nag ñu dajale ñaari ménager yi pour ñu mën a continuer activité yi promotion bi daal di dem pour maa ngi lay nuyu. Euh, maa ngi lay fay Max. ginnaaw bi ñu sant yàlla julli ci Baay laa ak Seydi ñu ngi nuyu euh, waa bi yëpp di nuyu promoteur bi di nuyu. Euh, El Hadj euh, euh, Thioune di di la nuyu yow Max di wax ne rek Sénégal yàlla na fi jàmm wàcc feebar bi nga xam ni moo fi nekk aussi yàlla na fi jóge completement ba kenn dootul gisati benn cas ah di wax alhamdulilah rabbil alamin bi nga xamee ne tey jii ñi doon wax naan làmb ji dina am ak du am tey moom boobu ñu xam ni làmb ji dina am le 19 décembre incha allah parce que lépp li waroon promoteur bi euh, promoteur bi def na ko fi ma ne réactiver euh, euh, préparation yi rek moom moo fi des ñuy ñaan yàlla nag yàlla yóbbu ñu ci témoin ak réussite. soppalay fu mu toll xam nga waajal ay at a nii mi ngi waajal dellusiwaat ñu reporté mu delluwaat fu mu toll ci préparation. sama poulain il était à dix jours de combat Covid bi ñëw ñu renvoyé mu delluwaat dem def di entraîner. tey jii actuellement xam naa ni li des ci ngoon gi dinaa ko rendre compte ci nga xam ne moo fi xew parce que am na ay rencontre yu war a am ci ci diggante bi balaa la 19 décembre te yooyu yëpp incha allah war na ko fekkee euh, te it xam naa ni moom su doon le 10 bu euh, su doon euh, date bee passé la doon bëri aussi kon naga nii kenn waxatu ko kon pare na mais tey jii dafa dem rek pour maintenir état de forme am ak yu mel noonu en tout cas ñu ngi koy xaar. pour que li nga xam ne moom la ñu seq ak promoteur bi ñu remplir ko comme il se doit. waaw jërëjëf kooku mooy euh, Bourkhane di ménager euh, booy Niang tey nag ñu maa ngi jàkkaarlook euh, El Hadj di agent waaw maxana mais pour mu pour mu leer ci caméra bi waaw El Hadj lay nuyu. Max maa lay fay. tey gis nañ ne sa poulain waajoon na ba mu jege Covid bi dal ci réew mi lëmbee àdduna ñu reporté mais bi CNG woote waat ñu jàpp le 19 décembre ñu war a continuer activité yi sa poulain fu mu toll. waaw sant yàlla avant tout euh, ñu ngi sant yàlla. waaw di nuyu sama grand Bourgane Wade yow tam di la nuyu di nuyu promoteur bi waaw parce que àdduna lépp sant la rek parce que metti woon na trop waaw sama poulain mi ngi ci entraînement yi waaye ñu ngi sant di dolli sant yàlla bi nga xamee ni tey woon na nu pour nu régulariser waat affaire bi. parce que euh, attente bi yàgg na trop trop trop trop trop li nga xam ni gor moom mi nga ko doon wéyee euh, jarul wax mais yàlla xam na euh, te je pense que sama adversaire tamit ménage am xam na métit yi nga xam ni dund nañ ko mais comme que ñëwaat nanu tey ah, pour relancer waat activité bi sant yàlla. mais euh, li may wax rek mooy gis nañ ne dana desaat sax xëy na face to face ak seen open press mais gis nañ ay yoon ñu jàpp ko te mbër yi duñ dajaloo bi yoon ñu bëgg na ginnaaw ba promoteur bi métti la ci ñëpp waaye métti woon na ci moom ndax joxe sa xaalis di xaar mbas mi dal ci réew mi yéen it ngeen finance moom it mu fere toog di xaar promotion bi ñëpp ci war a jàpp lan ngay wax sa plan pour bu ñu jàppaatee face à face ndax nag promoteur bi li ko waroon wàcc na pour yéen ngeen jàpp ci promotion bi loolu loolu loo ciy wax sa plan. xam nga ñun musuñu ragal face à face. xam nga fas à face boo ko tegee les règles de l'art rek face à day am parce que mënoo ñëw ni man damay collaborer avec un promoteur mu am euh, organisation te ci loolu ngay ngay tënku mais ñun bu lépp tegoo ci yoon comme li nu waxoon rek parce que fas à face boo ko sécuriser organisation bi nekk au top mais y pas de problème loolu mu li fi xew ñëpp xam nañ ko ñaan yàlla mu bañ am parce que je pense que sport jàmm la sport duñu ay noon sport jàmm la mais lépp problème d'organisation la parce que looy organiser looy def ci àdduna bu amul organisation mënul am sérénité te lu amul sérénité mënul am réussite loolu dafa leer waaw. jërëjëf euh, Poulain euh, damay ñëw euh, Bourkhane question bi laa lay delloo am na yeneen i rendez-vous ñaar jaar na fi yoo xam ne kenn ki day teew ki ci des du teew ñu am beneen boo xam ne fi promoteur bi toll promotion bi yéen ñëpp ci war a jàpp lan ngay wax sa Poulain. waaw xam nga man sama poulain euh, bu dee sensibiliser sensibiliser nañ ko bu yàgg xëy na peut-être am na loo xam ne xewoon na fi dañuy jàpp ne nattu la te euh, balaa baax xëy na lu mel nii mën na cee mën na mën na fa wane boppam mais am naa yaakaar ni yu mel noonu dootul xewati te xëy na loolu dañu mën na tax sax mu indi réussite pour journée boobu parce que ñaari camp yi kenn ku ne xam na ni Tapha xale bu discipliné la waaye kenn ku ne xam na ni booy Niang aussi mooy l'ambassadeur de la non violence kon xëy na loolu njuumte la woon boo xam ne jàll na te yaakaar naa ne dootul amati promoteur bi aussi lii expérience lay doon pour moom parce que man damay wax toujours ni que promoteur bi nit ku baax la ku am volonté la mais nag mbir mi gan la ci xamul liñ ci war a xam yépp dama koy ñaanal yàlla aussi mu am saf boo xam ni dañuy mun làmb de ba nga xam ni ëllëg yu mel noonu dootul amati te yaakaar nañ ni yooyu sax dootul amati sama plan moom tout le monde sait que ni eh, yar ak teggin ak fair play moom ci moom la fekk baax kon les fa ki yoon duñ fi nekk di fàttalikuwaat wala yu mel noonu mais dañuy wax ni rek loolu erreur la woon boo xam ni dugg na ci affaire bi te mbir nag boo ciy dugg erreur yu mel noonu am ba tey ji ñu naan le 19 décembre la ñuy bëri am nañu yaakaar ne xëy na réussite yëf yi moo tax loolu yëpp jaar fi. nettaliwu moo xuloo buur li may wax rek mooy fi mu toll promoteur bi wàccoo na ak yéen ci promotion bi bu leen wooyee na ñëpp ñëw ñu jàpp ci foofu laay waxee nee na nettali xuloo moom xam naa ne xuloo la te dama koy daw man. waaw loolu loolu laay wax ne dama ni xam nga mbir léeg-léeg nga dëgmal ko rek mu am ay gàllankoor xëy na peut-être loolu luy baaxal yëf yi la tey jii. am na lu bari lu mu loo xam ne jàngale na jàngale na ko ndax bu ñuy dem ci yenn face à face d'abord ut sécurité danañ xool nan lañ koy organiser te promoteur bi au fur et muy continuer di exercer muy muy gën a comprendre moo tax ma ne maa ngi koy ñaanal yàlla mu am benn staff boo xam ne parce que promoteur mënul lépp day am lu mu mun leneen li ay nit ñoo koy ñoo koy defal te loolu xëy na manqué na. am na loo xam moom yow yàgg nga gis ay face face to face yoo xam ne promoteur bi sax du fa jaar dañ ko koy defaral ba mu baax ba heure bi jot ñu ne ko affaire bi fees na mu taal otoom ñëw. mais da am staff avortement bi jóge ci mbër yi moom nañ ñëpp jàpp rek làmb xam nga neexul rek la buur dàquma jàng xam nga li ma la wax. loolu foofu ba léegi foofu laay waxee parce que nag promoteur bi moom moom moom événement tey jii loolu nga xam ne loolu laay wax dama ne suñ fi jógee parce que fi ñu bëgg a ànd ak Thialis actuellement parce que ay partenaires lañu. mooy wan ne ko il faut ñu am bu dëgër boo xamante ne dinañ dem ba nga xam dañ koy organiser sax te moom du fa nekk. léegi looy wax ñu lay teelu rendez-vous. rendez-vous le 19 décembre. Pikine arène nationale lañu ñuy boo Boy Niang nee na woon soo moytul combat bi day doxe këram ànd ak nit ñi ba làmb ja kon na ñëpp préparer le 19 décembre euh, dina am nag euh, pay-per-view waaye nag dañu bëgg làmb ji fees dell ñeneen ñi tamit jënd seeni paas kon bés boobu rendez-vous la Max Pikine mi ngi xaar booy ñaŋ Pikine mi ngi xaar Tapha Tine. Euh, El Hadj looy looy wax say fans rendez-vous bi ngay joxe. waaw balaa may wax samay fans euh, dara euh, Grand Bourgane nee na lutteur am mooy l'ambassadeur des non violences xam nga ti sais en matière de face à face boo ko équilibré rek lépp day jaar yoon. mais bu fekkee nii dangay ngay da ngay face à face indi ay car ah indi yenn euh, public yi public yooyu nanu xaar ba dem ca làmb ja face à face da nga koy équilibré boo ko équilibré rek mu jaar yoon dégg naa ko aussi mu ni booy Niang day doxe làmb ja Tapha aussi day doxe këram ba làmb ja dafa mel ni làmb ji teel naa tardé <laughs> euh, làmb ji teel naa tardé li ñu naan saakaande kii na kii kii na ñor sàbbi waaw Tapha Tine yóbbante na ma moom tamit dina doxe këram ba làmb ja waaw tey di ça sera combat boo xam ni euh, Sénégal yëpp dinañ xam ni c'est le déclic incha allah waaye. ñaa ko seetaan wóorul ñaa ko teewlu wóorul dama ñëw calis rek mu sànni ma ñaari kàddu euh, nga xam ne mooy promoteur bi euh, nga xam ne 2017 la ñëw def sept grands com def sept journée huit grands combats kooku mooy Pape Thialis Thialis maa ngi lay nuyu. ñu ngi lan moo waral jataayu tey bi. waa jataayu tey bi c'est pour comme dañ jàppoon date déjà le 19 décembre. donc mu amoon quelques engagements yu desoon. donc moom la ñu pour régulariser ko. je pense que maintenant la date elle est maintenue pour le 19 décembre incha allah. Mm-hmm. yan innovation lañ ciy xaar ak euh, ci promotion bi lan lañ ciy xaar. waaw peut-être que gën a gën a rebooster encore promotion yi parce que da commencé woon nañ promotion après bas mu arrêté woon ko. donc am rapport état. donc ñu ngi reprendre activités yi te incha allah dina ko gën a booster pour communication mais que ñëpp jàpp ci que presse locale aussi gën si jàpp mi les presse en ligne ak ñëpp dinañ xool ñu ngi si liggéeyal ñoom ñëpp ñu jàpp ci pour que promotion bi gën a mën a dox. Euh, ak li xew léegi pour dugg ci làmb ji nan lay demee ndax technologie bi avancé gis nañ yenn sponsors yi daw nañu ba am na yeneen i doxalin yu yeneen yi doxalin yu nit ñi euh, euh, xewal pour au nga mën cee génn. waaw am pay per donc dina euh, am aussi la vente en ligne parce que bii bëri nañ de vente en ligne c'est pour toujours respecter mesures barrières yi parce que vente en ligne bi aussi dañ koy def donc dafaale aussi pay-per-view donc au ngay nga ñëw jënd foofu en ligne di nga mën a jënd donc ça sera moins cher par rapport que boo jëndee boo ñëwee sur place nga jënd waaw kon daal Leewtoo ñu ngi koy xaar ci bés yu mag yi bu mel ni Bombardier Tapha Tine nga xam ne combat roi euh, Bombardier ne combat royal royal la woon kon ñu ngi xaar loolu. incha allah si si loolu lañ jëm sa donc si fi ñu ko fi ñu ko arrêté woon si Bombardier Eumeu Sène fa la ñuy delluwaat yokk ci lu bëri loo xam ne innovation yu bees la. parrain yi am na changement wala amul changement. bon parrain yi nag ba léegi waxtaanuñ ci parce que feebaroon. mais dinañ ci waxtaan ak moom et puis luñ ci am rek. incha allah dinañ revenir aussi jox leen information bi. ce mot la waaw di gërëm di gërëm euh, manager yi donc représentant ñaari mbër yi attente bi yàgg na mais c'est indépendant de notre volonté donc suñu borom moo ko dogal état am sañ-sañ reporté mu reporter donc tey ubbi na làmb ji donc ñu aussi mënuñu jël làmb bu am plus de cent cinquante millions nga si def di jël date di ko bazarder donc dañu xool date bu baax te jàpp nañ si si gërëm ñëpp si gërëm aussi sponsor yi si nga xam ne si ñu ngi siy jàpp ku mel ni Jador mi ngi jàpp yeneen sponsor yoo xam ne ñu ngi si yoon bi di ñëw donc incha allah ñëpp ñu ngi leen di remercier di remercier aussi euh, représentant mbër yi di remercier aussi mbër yi donc wax ni ñëpp daal ñu ngi leen di ñu ngi leen di gërëm di leen sant. jërëjëf rendez-vous bi dix 19 décembre la ak Leewtoo kon Leewtoo ngi ñëw dal seen kaw miin nañu événement jaaxaluñu jëre ngeen jëf ba beneen yoon. mom léegi ñu naan Tapha Tine attention. ñaar ñoom ñaar Sa Thiès ñoom ñaar jël na Tapha Tine dóor na Tapha Tine a ngi dóor ci suuf. attention Sa Thiès ñaar daan na